ñu bëgg a tënk ci wolof boo leen xoolee ngeen xam ñu koy waxee xëy da ci ànd ak mer mais il faut ñu mer parce que boo nekkee ci diggante nga nekk en face benn gouvernement bi nga xamante ne xamul fu mu jëm gouvernement bi nga xamante ne dafa gu dafa gumba dafa tax li mel ni li am Dakar rek moo nar a am Ziguinchor te ñuy wax waa Ziguinchor war leen toog saa su ne bu ñu nee xeex ngeen ne waa Dakar nañu ko xeexal courant bi du Dakar rek courant bi fépp la si Sénégal courant bu ñu Macky Sall bëgg yokk ak gouvernement boo waxee ñu ne gafa réew mi supporteetul mënatul jël en subvention bi muy def si électricité bi dafa réew mi ñan ñoo ko moom ñu dul waa réew mi bu fekkee ñun suñu gafa ñoom dañoo yaakaar ñoom ñoo ko moom di gis ngeen ñu ngi jëfaru ku nekk mu ngi wax ay 600 millions yu ñu sàcc ay milliards ñu sàcc ay ay tonnes semence yu ñu détourné dañuy jëfaru rek pourquoi ñuy jëfaru parce que boo nekkee di jël li nga xamante ne moo moo ko au lieu nga delloo ko ñu ko moom li rek moo lay dal gis nga Macky Sall lu mu li ko dal ni da koo war a que lii moo ko dara dal parce que président la bi nga xamante ne moom ak gouvernement am ñuy teg tànk ñu leen di wax gis ngeen lu mu leen jaral ngeen yokku ko ñun lu ko lu ko raw jaral ñu ko pour ngeen bañ ko yokk parce que duñ leen ko may yéen boo leen xamul buur saay na nag da leen leen ne buur mu ngi ci télé bi buur moom mu ngi si télé bi léegi mu neex mu naqari ñu manifester parce que une fois de plus yow moomooñu sa gouvernement ñu ñun bu ñuy juddu dañoo juddu ak indépendance ñun bu ñuy juddu dañoo juddu ak liberté yow bu fekkee da ngeen yaakaar ni da ngeen war a fokkati ñu liberté ngeen juum beneen bi mooy Sénégal kumba am ndey ak kumba amul ndey waaw Guy Marius ak ñu mu àndal ñooy kumba amuñu ndey ndax yow muy président de la république bi nga wàccee sa rakk buñ koy jiñ waxu 6000 mille yi nga wàccee ko ci caisse de dépôt et de consignation ay ay ay ay jege ñaaleewam ay àndandoowam ñëw manifester ñu ñëw ba pale yow loo def mooy bi nga génnee xool ne ree ah yaa ngi ne kon sama rak am na lii sa rakk ñooñu bu leen joxloon xaalis kenn du ñëw yow xam nga ko sa rakk amul base nañu waxante dëgg ñu lay wax ni na xam ni courant bi nga bëgg yokku nii duñ ko nangu yow daanaka yow lépp li nga am ñun ñoo la koy jox nga bëgg ñëw tegaat ñu leneen beneen charge loolu duñ ko nangu gis nga salaire yi yokkoo ko munoo fi yokk courant yow yaa fi neewoon ne nii munatuma yokk salaire salaire du ko yokk léegi ku mënul yokk salaire nooy yokkee ay ay ay courant ko nangu président de la république xam nga lu tubaab ne c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase moom la lu ëpp tuuri nag dañ loo muñal a muñal a muñal suñu génnee nga génnee ay policier suñu waxee nga indil ñu justice léegi nag ñun ñeme nañ dëkku lépp parce que ñun fu ñu toll nii dañu bëgg sauver suñu peuple ñu bàyyati ngay fokkati suñu liberté yow ak sa gouvernement ak sa justice bi nga xamante ne yow yaa ko fi teg duñ ko nangu beneen bi mooy kum li ñuy wax si kumba am ndey a kumba amul ndey ngir yàlla gii maris ak ay xaritom bàyyi leen ñu dem bay leen ñu dem yow boo nee yow justice bi yow tegoo si sa tànk ñun dañuy wax loolu amul parce que li ñu gis mooy justice bi yaa si teg sa tànk te man encore maa ngi wax ñi nga xamante ne suñu juges yu ak suñu procureur yéen jàngu leen pour servir Macky Sall da ngeen jàng pour servir le peuple sénégalais bu mu leen tegee yi ngeen xamante ne yoon àndul ak moom bu leen ko nangu gi Marius li ngeen ko def nii ak ay xaritom jaay doole kese la te ñun lu ñuy ñaan mooy na ngeen bàyyi Guy nu mu gën a parce que Guy Marius daanaka déjà mu ngi am le 17 daf ko war a ngeen jàpp doomu jàmbur bi ak ay xaritam ngeen tëj ko ci prison ba pare li ci gën a mooy ñi ngeen war a isolé doo leen isolé Guy Marius lan la def ba ngeen koy isolé camp pénal yéen kay ñi ngeen war a isolé xam ngeen leen seen sàcc yooyu nekk gouvernement ñooñu nga war a jàpp leen waaw parce que après tout ku sàcc bi nekk sa gouvernement monsieur Macky Sall du ñu nangu li ñu bëgg teg ngeen gaaw libéré doomu jàmbur ak xaritom parce que fu ñu nekk noonu du seen place bu fekkee yéen nag Sénégal da ngeen yaakaar ni activisme péché la da ngeen activisme la jàppaleen ñu ñun yëpp jeunesse bi yëpp jeunesse sénégalais bi yëpp kon dinañ nekk si ay baakaar parce que jeunesse sénégalaise bi déterminé naw xam na boppam jóg na pour léegi kenn du fokkatiyaat lu mu moom waaye ba jóg na tamit pour sauver peuple sénégalais bi parce que ñun sonn nañ te buñ lay fal wax dëgg yàlla li ñuy waxoon dafa waroo ak li ngay def